jërë ngeen jëf internet Feeling Dakar TV dal leen ak jàmm ci li gën a fës ci bopp xibaar yi sagara ngay xeeñ diggante Thérèse Faye Diouf ak Cheikh Bara Ndiaye gannaaw ba nga xam ni moom chroniqueur bi lee daal dina yëkkati ay kàddu mu nekk ay révélation daal koy teg ci kawam moom nag Thérèse Faye Diouf nekkoon ministre ci ay jamono daal dina génn rek tontu ki nga xam ni moo di seex baara njaay ndax itam nee na ko bu fekkente ni si guerre nga bëgg wala coow di nga ko daal di am ndax ko yëkkati jëmale ko ci kaw euh, moom mi lee euh, di Cheikh Bara Ndiaye euh, ginnaaw ba mu daal di xumaale ki fi nekkoon njiit mu réew mi Macky Sall ci yenn anam la daal di amee këram gën nekk ci Maroc itam nan la ko defee ba daal di koy am mu nekk ay kàddu yoo nga xam ni jur na coow lu rëy ci réew mi ba ñëpp di ko wax moom nag wéyal na ay kàddoom rek waaye bi yoon mu ngi ko jëmale ci ki nga xamante ni si moo fi nekkoon ministre di Thérèse ju Faye waaye tamit nekkoon maire sax moom mi di Cheikh Bara am na baax a baax ci ban anam la Thérèse Faye moom mi la daal di am alal ak teraanga ci diggante ki at ak ñaar mu nekk diir bi nga xam ni ci la Macky Sall daal di tooge ci donkaasi gi mu nekk 2012 ba 2024 loolee nekk loo nga xam ni jur na jiixi jaaxa ci bopp Serigne Bara Ndiaye bi ba loolee waral mu toog ci plateau télévision yi di ko wax bu ñu sukkandikoo ci Cheikh Bara nag moom nee na kii di Thérèse Faye Diouf jamono ji mu dal di nekk milliardaire wala sax multimilliardaire moom mi locataire la woon Yoff benn benn néeg la fa amoon moom ak boroom këram doon fa dëkk ak i njabootam te loolee sax mu ngi am jamono bi nga xamante si ñu ngi doog a fal kii di Macky Sall ci bopp réew mi tey jii ñu daal di gis kii di Thérèse Faye Diouf daal di nekk milliardaire loolee nag nekk loo nga xamante ni si moom la di Cheikh Bara mënu ko daal di gëm ndax dafa jàpp ni kii di Thérèse Faye moom mi la alal ji nga xamante ni moom la rek daal di yor ak teraanga ji mu yor loolee nam ko amee léewul dafa doon dund rek ci ndoddu askan wi loolee nag nekk ay accusation yu diis yoo nga xam ni mi euh, moo waral l'ancien ministre bi Thérèse Diouf Faye euh, daal di génn rek daal di tontu Cheikh baara waaye tamit moom mi di Thérèse Faye daal di nay fas yéene topp Cheikh Bara yoon ñu daal di dem fa mbaxana doone benn rek ngir kàddu yi nga xamante ne si kii di Cheikh Bara daal di ko yëkkati mu daal di koy leeral euh, moom mi Thérèse Faye nag nee na ko Cheikh Bara na nga daal di xaar sab situation directe ndax itam kat nga waaye tamit koo nga xam ni sab xol mu suuf sedd nga faw rek ñu daal di dem fa mbaxana doone benn nga daal di leeral li nga xam ni moom nga may jiiñ bu fekkente ni itam guerre nga bëgg ak lu mu mën doon nañ te dem ba mu jeex tàkk muy mel ne kii di Thérèse Faye Diouf moom mi le fasul yéene dellu ginnaaw benn yoon ci kàddu yi nga xam ni kii di Cheikh Bara daal dina ko yëkkati daal di koy teg ci kaw ndoddam moom mi leen nag daal dina yàq keteme Cheikh baara Ndiaye ndax itam nee na au lieu que nga dem daal di régler jafe-jafe askan wi tartar yi ñu nekkee coono yi ñu nekkee waaye amoo benn njëriñ amoo benn métier lu ci plateau télévision yi di yàq ñu baax ñi au lieu ngay servir li nga xamante ni si moo di dëkk bi waaye benn njëriñ amoo ko ak kàddu yoo nga xamante ni si daal ëpp naa yëkkati sax làmmiñ di ko wax nga di ko teg ci ñoo nga xamante ni si ay góor lan ñoo nga xam ni dañoo daal di jariñ seen réew dañoo daal di jariñ seenu askan seenu askan avec dignité waaye tamit ab négation ba tey ji ñu daal di am li ñu am loolee moo nekk yi kàddu yi nga xam ni kii di Thérèse Faye Diouf daal nu ko yëkkati rek jëmmale ko ci Cheikh baara ak lu mu ci mënti doon rek nañu xaar ba xam yoon dina daal di def ci li war diggante Cheikh Bara ak itam kii di Thérèse Diouf Faye ak ñoom ñaar seen coow li fan la nar a mujj ndax